Mhm. gouvernement bu bees bi mhm. balaa maa ñëw ci ni ma la ko laajalee li ma ko laajee Ahmadou côté mhm. bi may accentuer mooy l' absence de Mimi Touré euh, Maïmouna Bousso Habib euh, Sy ak euh, ak Aïda Mbodj askan wi bi liste bi génnee rek dañ doon laaj ci mi Mimi pourquoi gisuñu ko pourquoi pas sax Khalifa Ababacar Sall c'est que am na mais ñoom dañoo woote ubbil ñëpp seen bunt pour ñu ñëw liggéey la moo waral bile absence ci ñi nga xamante ne tey jii on peut dire que ce sont des te askan wi ñu leen doon xaar ci gouvernement waaw vingt cinq ministres la ñu am déjà. Mhm. bu doon ubbil nga ko ñooñu. dafay mhm. daal di nekk pàccoo. Mhm. day nekk pàccoo wu leer ca njëlbeen ga. réglé na loolu. su mi bokkoon day nekk pàccoo. tey waxuma bu bokkee day nekk pàccoo. dama ne le fait que leen ku bëgg wax am na ci loo xam bu ñu ko defoon. dafay nekk pàccoo. ñooñu ñu am xam-xam lañ tey bu mënoon mu wax ne ma. Euh, diggante procureur Ousmane Diagne ak Mimi Touré. parce que Mimi boo ko doon jox tey soit premier ministre nga koy jox. Mhm. bon moo Ousmane Sonko comparé leen. Mhm. ci côté bi kan moo war a gën a yell ci moom mu nekk PM yaakaar naa loolu da nga xam ne Ousmane la euh, du baat ak tontu la. Mhm. beneen bi mooy boo indi woon procureur Ousmane Diagne ak Mimi man jàpp naa ne ñoom ñaar ñëpp mën nañ ko yor. parce que Mimi nag bi mu yoree justice am na lu ci doon dox même bu doon am luy sooxee danga ne peut-être que moom doo ko sax ci xool mais nag euh, mbir mi mooy. xam nga nit du def tamit ci beneen régime nekkoon na ministre ñu nekkaat feneen. Mhm. am ñu gën a nekk ndaw ba pare ak yu demee noonu ñu mën a defaat rupture wala yu demee noonu dèjà li ñuy abal mimi. Mhm. pour wane ne da doon kaas wala keneen loolu amul. ñëwuñu pour séddoo ñëwuñu pour paajoo dañoo ñëw doon wàllu seen réew. Mhm. gis ko ci loxo yu mu nekk yoo xam ne jàpp nañ ne baaxul war naa soppi ko soppi nañ ko kooku wóolu nañ ko nee woon na bu ñëwee di waxu paajoo. jël na ay nit yoo xam ne. kenn ku ci nekk umpale nga ko am na ci nag ñoo xam ne woon pour man damay wax ne taskatu xibaar yi ñoom ñoo war a gën a gëstu parce que ku mel ni Abdourahmane Sarr docteur Sarr mhm. bu ko nit ma ne umpale fii ci Sénégal te di nekk di xëy ci nekk intellectuel man dafa may jaaxal mhm. koo xam ne 2012 bokkoon na ci candidat yi nga xam ne ñoo de ñoo déclaré woon bokk ci ñi ñaar ñu ñu mujj rëkkale muy moom ak Kéba Kend mhm. ak euh, Youssou Ndour ñett ñi ñu rëkkale bàyyi Juma Jang ñu jàll ñoom dañu ñëw bokk ci kooku mooy docteur Sarr bokkoon na 2012 pour bokk moom la ñu recalé Youssou Ndour Keba Kand ci ma jëg jaxate jàll ak mhm. ñeneen ña nga xam ne quinze personnes yi ci des foofu lay la laay waxee kooku moom la nga ñëw ci ma Buuba Jaañ kooku nit koo xam ne ku gëstu développement nag bu fee xam nga tamit am na ci yéen ñoo xam ne seen spécialité mooy ci wàllu agriculture mhm. ak ñooñu léegi nag da gis ne rédaction yi peut-être que moyens yi la foofu tamit euh, état bu ñàkk a tege ci yoon la parce que réew mi bu kii ba ku ne gis sa bopp boo demee ci rédaction yi da nga gis koo xam ne ci desk politique lay nekk kii culture lay nekk kee ci wàllu agriculture wala naaw yooyu bu amee amatut kuy rëcc. Mm-hmm. amatut kuy rëcc parce que kooku ku gëstu tuuti da nga xam ne nit la koo banquier la mais ñëw ci wàllu développement mu suqali gisante ak yenn baykat monter leen ay dossiers ak yooyu mm-hmm. mais demaat jël fa lu mat fukki nit ak juróom mu indi leen Sénégal ne pour ñu ñëw ñu def benn kii bu ñuy tuddee euh, gàdd gi. Mm-hmm. gàdd gi mooy njaañeen maanaam fa dëkk ba nga xam ne maanaam fa la ñi nga xam ne ñooy sant jaañ wala amar wala nanga moom la ñuy wax gàdd ga rek. Mm-hmm. boo demee Mbour am na gàdd ga boo demee Touba am na gàdd ga foo dem am na gàdd ga moom noonu la ko tuddee. Mm-hmm. mu def ci ñu loo xam ne ci wàllu mbay la nga xam ne boo doon xool. lu mu néew néew néew wala li ñuy xëyloo. Mm. bis euh, ak yooyu mat na lu ëpp six cent personnes. loolu bu ko nit defee. Mhm. kon ki la waxoon ne la jàpp mooy li Bamba wax sànq ne bu doon euh, jox ci rek Macky Sall la ko war a jëkk a jox cër parce que moo la ko gën a xam. dëgg la ànd ci ak benn société boo xam ne ak lu ñu mën a wax euh, kii na yoon wala kii ku fi na gunge na ci euh, ay kii ñuy monter ay kii yoo xam ne loolu mooy gan du tabax li li li Lat Joor waxoon. Mhm. nga xam ne dem nañ ba bu ñu la taxawee moom am na xam-xam am expertise bi nekk banque ak yooyu waaye ànd na ak benn banque. de place bu fi nekk boo xam ne mën la ne mhm. moomeelu ab sénégalais moo bon microfinance la moomeelu sénégalais moo ko moo ko moom mhm. wala yu demee noonu wala sax ci Afrique lañ doon wax léegi sax léegi lépp sénégalais muy muy muy muy muy microfinance bu boobu noonu ma tudd sànq bëgguma cee defaat muy nekk publicité mhm. mu gunge leen te kooku mu ngi gungewaat ay nit kooku noonu bu fekkee ne xool nga ko dangay xam ne liggéeykat la beneen bi mooy Cheikh Tidiane jee ci liñ ko nga xam ne moom lañ ko jox koo xam ne yàgg dañ ko gis mu nekk ci société civile di dox di ñoŋal dund dundinuk askan wi. Mhm. kooku buñ fekkee jox nañ ko euh, hydraulique ak assainissement man mi dëkk Touba di dëkk Daaru Rahman nga xam ne ci nguuru euh, Macky Sall bi muy nguuru laay wax danaa ko tuddee loolu parce que da doon nguuru ci la ñu gën sonal ñun waa Daaru Rahman. nga mhm. xam ne suñu bassin de rétention bële nga xam ne moom la ñu jëlee woon Kër Ñang indi ko Daaru Rahman ñaar mhm. parce que dañuy wax foofu di Daaru Rahman. ba tey ñu wax Kër Kàbb mais yëpp ci zone boobu la nekk daaw jéeg mu toj mhm. yàq ay toolu mbay yi ak toolu nawet yi sëñ Cheikh Daara Rahman ak yëpp bi ñu xoolee ñu négligé ne woon danañ dédommager ñëpp danañ leen di fay ba naga ni firage kàcc kese Antoine Diome daf faa ñëw def fa kii doon visité ci tuubaa ak yooyu ñu ngàcc ci ndoxum Touba indi foofu mhm. mu dem ci guddi gi bassin ba toj jàll wetuk Saalum ga lépp lu mu romb yàq na ko mhm. ñun ñëwaat ba renaat mu du mu demaat buum delluwaat ca booy booy ba gën a yàq ñu ñëwaat ba nëgëni kàcce kese liñ doon wax ak nëgëni dara lañ fa deful. Mhm. te loolu boo ko évaluer mu ëpp un milliard liñ ñu yàqal. waxuma la dara waaye li ñu indil ci yoo gis nga nii nii bu ma demee julli ji ñetti fan moo ko amee. Mhm. su ma ñëwee boo gisee sama yaram ak loo mën a jël matuwaay. Mhm. daa raxmaan dañu sonn te suñ borom dañ ñu may daf ñu may suuf soo xam ne lu masaana taw. bu noppee ya euh, euh, sept jours sax bu ko tawoon bu noppee euh, suuf si naan ko maanaam ci foo xam ne amoon na dex depuis ci sëñ Abdou Mbacke nga xam ne loolu même loolu noonu ay ay ay année trente yi la drainé woon Touba nga xam ne Touba dafa bëri ndox ak yooyu ndox mi yëpp daan ñëw foofu daan nekk dër bi ñu ciy bay kon loolu bu demaatee ba ñëw war nañ ko mën a defar ba nga xam ne nit ñi danañ ko mën a bayee. Euh, sellal ndox ma ba muy man waa ndokk googu ñu yàqal tey nga xam ne seen teen yi. dee nañ ñu man cee defar maraîchage bi parce que marché Ocass Touba ay jamono li ëpp ci leen revêtaillé maanaam mën nga ne soixante quinze pour cent ndokk googu la doon jógee. ci wàllu salaat wala ak non bien sûr loolu kay yaakaar naa bu ñu ko deful moom. yat bi la ñuy xaar. loolu noonu bu amee ba pare. Mhm. ñu di leen saboote Touba am ndox mu ñàkk mhm. am forage yu dul jeex. Mhm. Kaolack ak ëpp euh, foofu te Kaolack mën nañu ne lim am ci forage ma juróom-ñaar ci layam wala matu ko. Mhm. Touba ñu nga mën a dem ñu naan la ay 39 forage mhm. ba noppi ñu lay wax ay sabotage di la wax lu nekk ak yooyu te mënuñu am ndox. mu war a doon loo xam ne dañ ko war a diagnostiqué maanaam dañ ko war a càmbar bicc ko xool lan moo tax doxul ñu xool loolu ndox mais daal mënoo di am problème mu ndox. Hmm. ba pare mu mooy naan ba noppi di am ndox mu lay sonal. am wal loolu noonu fi ma fi ma hmm. bëgg a accentuer mooy tey Mimi Touré fan lañ ko mën a xaarandi. ndax itam ànd nga xam jàmbaar la. Mhm. fi mu duggee ci opposition bi. Mhm. def na ci lu kenn deful. Mhm. mais nag nañu bàyyi yi ñuy wax nii. di ko ko laajul laaju ko. deful pression est-ce bëgg ko woon. non da bàyyi ba déglu fenn ñu wax la nga dégg ne bëgg ko woon. gars yi toog nit mën na bëgg nii mais déedéet nit ñi ci boppam ñoo doon am yéene dafa ku mel ni Mimi Touré loolu sax nag mm. terangal parce que Mimi Touré gëddaam dem ba sénégalais yëpp di xam ne fu mu bokk war na fa def nangam ak nang loolu dama leen koy bàyyee mais nag comme Mimi ba kiiwuñ ko bu leen ko mettre en mal ak coalition bi nañ ko bàyyi mu toog fi mu toog doon yaay doon bàjjen doon nangam lépp waaw waaw bu assemblée gën waaw bu ko boobaa bu ci nekkee en tout cas mooy koo xam ne post bu ñu ko ci joxoon danañ xam ne yeelal na ci moom bu ñu ko joxul post yi danañ xam ne ah am na keneen ku waaw mais loolu lan moo gën a am njariñ nga dem ba soppi dara lu fi nekk say doom moromi doom ñëw di doxal lu ko gën. wala bàyyi bàjjan bàyyi wut dama ne. ci politique la nekk di doxal ak yooyu. politique du question néew ma day bàyyi de. man yow yow yow yow lan nga bëgg ci Mimi Yàlla. Mimi hmm. li mu def nii laa bëgg ci moom. tekk tekkaaral tekk tekkaaral nii. toog continuer di liggéey ci li muy nekk di liggéey Mimi dafa am métier. bis bu ñu demoon tey ba soxla ko ci poste sàngam ñoo xam ne post bi moo ci bu ñu ko ko joxee mu doxal ko. Mm. yii ñu koy abal ak di ko ko dëkkale wala naan laaj na di indi problème fu problème amul ñoo bañ. andiwuñu problème nun waa Sénégal yàlla dañoo. sutura carrément daa sonnoon ci xeex gi rek nag. saa waaw waaw waaw ñëpp kii yi ngay gis nii. Mm. ñun bu ñu waxul kenn kenn warta wax. Mm. élite patriote bii nga xam ne ñii ñoo ko taxawal. man mi ma gis muy nangu seen waaw de non du question moo nangu mais ak nit ñi tamit bañ xootal boo waxee ñu ne la caravane diw bi. Hmm. mbir bu ah, am jaaral wax ji caravane Cheikh Bara Ndiaye waaw waaw waaw d' man man ma problème mu tudd seex Bara. Hmm. Cheikh Bara amul problème mu tudd ma. Hmm. buñ nee caravane nangam gaa yi war a xóotal defoon ci ne ah waaye lii la mooy seen secret lu tax. daal dem ne ko seex Bara ndax caravane bii yow. noo def ba taxawal li bu boobaa moom dana wax lim am am na ci loo xam ne yéen. yéen a ko waroon a def ak ñeneen ak ñeneen. élite patriotique tudd. dañu doon ay nit ñu lëkkaloo bi ñu demee ba taxaw ñiy indi seeni oto parking indi ko teg kii lépp looy gis luy tafe mën naa la sax kii wu joomaay président bi lu ci ëpp mujj na ay tafam sax caravane bu mag bi am na ci ñoo xam ne dañ doon ñëw di jaar ci man ak ñeneen sama kër boo yeggee yëpp yuy moto yi am ngi fa desal ba nëgëni moo ko taf yëpp boo gis rek moo ko moo ko taf gratuitement nag bu dee am ñenn ñu koy kii après lay am ay yu ndaw ak yooyu mais lépp luy élite patriote moo ko taf bay taxal coalition bu mag bi ak ñeneen sénégalais yi nga xam ne seen oto lañ yor bëggoon mu tax mm. kii loolu la